أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al an'am ci kattanu borom bi tey ju jël ñetti aaya ay 56 57 58 ñetti aaya yi sunu borom din ci jàngal min hidayatil ayat li ñu war a jëlee ci aaya yi bi ci njëkk mooy wujubu sabr yàlla ngi nuy xamal ne danoo war a muñ xoolal yàlla bi muy wàcc alquran bi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono yooyu lu jullit ñi daan doon daj ak doon ko dégg ak doon ko gis terewul yàlla ne leen muñ leen kon bu ñu demee ba toll ci jamono boobu tey li jullit yi daj ci àddina bi di ko dégg di ko gis li war ci ñoom mooy ñu muñ lan mooy muñ asabru habsu nafs ala ma takrah muñ mooy nga poñe bakkan bi defloo ko lu mu bañ a def lu mu bëggut a def defloo ko loo xam ne bëggu ko gërëmu ko nga defloo ko loolu mooy muñ suñ ci doon joxe misaal ñu ne yeewu fajar ni mu méttee nga fexe poñe bakkan bi ba mu jóg fajar koor ni méttee nga poñe bakkan bi mu xiif génne alal joxe ni méttee sarax nga génne joxe loolu moom mooy muñ mooy nga poñe bakkan bi ba defloo ko loo xam ne ci xeetu jaamu yàlla yi moom la yi bañ a def nga defloo ko ko boroom xam-xam yi bi ñuy wax façon yi muñ yi dañ ñoo wax ñett la muñ jaamu yàlla muñ moy yàlla muñ jafe-jafe yi ak nattu yi jaamu yàlla mbokk yi nit su muñulee du ko mun a def moo tax soo bëggee nekk jaamab yàlla fa nga muñ yi la yàlla nattu ci wàllu jaamu li la yàlla sant ci wàllu jaamu nga war ko def soo muñul doo ko def julli jàng alquran woor saraxe joxe azaka mbooleem xeetu jaamu yàlla yi soo muñul benn nga ci dul def nga muñ mooy li ma waxoon sànq poñe bakkan bi defloo ko ko fal force ñaareel bi mooy mooy yàlla mooy yàlla gis nga ni mu neexe ci bakkan ni mu neexe ci xol soo ko muñul doo ko mën a bàyyi ndax soo bëggee nekk jaamu yàlla fa nga muñ mooy yàlla yi waaw ndax mooy yàlla yi amul bu ci neexul yépp a neex ci xol yépp a neex ci bakkaan yépp a neex ci jamono bu nekk ci lu nekk boo muñul nag takk sa bakkan pour bàyyi ko yar sa bakkan loolu bu sëri doon wax ne an nafs ka tifl bakkan a ngi mel ne liir buy nàmp soo ferelul bakkan bi ci xeetu mooy yàlla yooyu da ngay am jafe-jafe doo mën a topp sa borom ñetteel bi ci muñ mooy muñ jafe-jafe yi ak nattu yi feebar yi jàngoro yi fa nga muñ ko xam ne yàlla moo la ko teg mooy sa borom inna allaha ida ahabba qawman ibtalaahum yàlla bu buggee ay nit nattu leen kon aaya yi nekk sunu kanam danañ ci jàng sunu borom subhanahu wa taala di muñloo ab yonentam ñu war cee jàng loolu mooy danoo war a muñ di ci muñloo jullit yi ñaareel bi mooy wa taxamulu mimma yalqaahu daa'i min ahli zeygi wa dalal min al iftirahat al fasida danañ jàng tey ne aussi yàlla dina xamal ki wuutu yonent bi ci wooteel ko ci diineem ji ci leeralal ko sunnaam bi nekk aji woote buy woo nit ñi di leen dugal ci lislaam di leen jàngalaat diine dafa war a yenu ay lor yoo xam ne mooy jóge ci saay-saay si ahlu zeyg mooy ñi jeng di wax lu leen neex xoolal tey vidéo yi ci whatsapp yi imo youtube facebook tey ay nit ñoo ngi wax ci diine loo xam ne bu fekkoon ne Sénégal dëkku lislaam la dañ leen di tëlal rek rendi leen rey la dagg seen bopp yi naka la ab nit di waxee ne sëñ bi moo bind yàlla ne ko bu ma ci feeñ ndax yàlla am na ko bind lan lañ jàng ci alquran yàlla mu ne allahu xaaliq kullu shay yàlla nee na maa bind lépp xaaliq kullu shay mais ñi koy wax da ngay gis ñu am dëgër fit goo xam ne du ñu tiit du ñu raf du ñu dengi dengi du ñu hésité dañuy indi wax boo xam ne li yàlla waxoon ci quran wala qad qaalu kalimatal kufri wax nañ baat boo xam ne génne na leen ci diine mais maal asaf noonu la mun a demee effectivement ndax nit bu waxee ne ñun duñu ay jullit ñun nangam lañu ñun duñu ay jullit ni weeru koor gëne weer yi suñu weeru nangam noonu la gëne weer yi ni yonent gënee mbindeef yi suñu kilifa gi noonu la gënee nit ñi maanaam di gam-gam la yooyu ngeen di dégg ci charia gars yi di ko wax naan yonent bi mooy gën gi mbindeef alxuraan mooy ngën gi téere laylatul qadr mooy ngën gi guddi ajjuma mooy ngën gi bis màkka mooy ngën gi dëkk noonu ngeen déggee ñu koy wax noonu ngeen déggee fan yi ay nit di wax ne ñoom tamit ñun ñooy def li ñun ñoo li ñun ñoo li loolu loolu mbokk yi tey jii ci jamono kuy wooteel yàlla foog nga muñ baat yooyu waaw loolu day wane ne ñoo ngi ci axiru zaman moo tax mu ne wa taxamulu mimma yalqaahu addaai min ahli zeyri foog ñu nangoo yenu ñi jéng ñi ñi teguwul ci yoonu yàlla ñi jaamu seeni bànneex di jaamu seeni xalaat di farfarloo foog ñu nangoo muñ ñooñi li ñuy wax ndax min ahli zeyri la rek déedéet wax mu ne wax dalaal ak nit ñu réer ñi parce que am na ku bind yàlla diwa bind yàlla moom xam nga loolu soo koy wax ku réer rek moo koy wax diw dee bind yàlla pare dee bàyyi fi yàlla ah kon de moom dinañu indi am na problème bu rëy waaw moom mu bind yàlla ba pare dee bàyyi fi yàlla moom moom moom moom mu dee yàlla deewul loolu dëgg-dëgg mbokk yi ku réer rek moo koy wax ay way juram dee ay doomam dee ay soxnaam dee te moom moo xam ne mu am pouvoir boo xam ne mën na bind mën na defar ah mënul dekkil kenn ci ñooñ dëgg-dëgg xam nga ne loolu ku réer rek moo koy wax moo la yàlla na yàlla jubal ndax ñooñu rek la mu ne minal iqtirahat alfasida ci ay mbir yoo xam ne dañ koy wax di jéem a gam-gamle diine lislaam ak wala jéem a tërkale yonent bi ak wala jéem a jël téere ab téere di ko nattaleeg alquran wala jéem a jël ab dëkk di ko nattaleeg dëkk yooyu dëgg-dëgg tey jii ku bëgg a wooteel yàlla mbir yooyu bu fekkee da nga cee nekk sax soo moytuwul da ngay tardé ndax am na ñoo xam ne jaruñoo tontu jaruñu sax waxal waaw ñooñu alxuraan naan shafi sootu baqara li ngeen di jàng yàlla naan sootul baqara la ngeen fay jàng yàlla naan Hmm, sootu baqara yàlla naan shafihi ala innahum humu shufaha walakin la ya'lamun la ya'lamuna maza annahum shufaha am na lu koy wax rek ku koy wax ku koy wax ku nekk da ngaa dese ku koy dëggalit da ngaa dese ku naan maa ko ko waxloo it da ngaa dese ndax ku dese dëgg ku ku am xel dëgg ku sa xel nekk ci yow di nga xalaat leneen lu dul diwa bind yàlla ne ko bu ma ci feeñ mbokk yi beneen bi mooy danañ jàng ci aaye yi nekk sunu kanam tooñkat yépp yàlla xam na leen te yàlla daa tere tooñ te kuy tooñ ku ne sa mujj du rafet ak ku mun doon na moo tax doole xam-xam kàttan am-am warul jay nit ba muy tooñaate léeg-léeg nag ci suñ jamono ni dina toll ci daraja wala ci mën-mën wala ci kàttan wala wala wala wala wala darajaam wala sax nguurama lu ko neex tooñ lu ko neex def lu tax parce que parce que moo yor nguur gi parce que moo am xam-xam bi parce que moo yor kàttan ji parce que moo yor doole ji parce que moo yor alal ji mu lu ko neex def loolu yàlla daf koy moytandikuloo ab jullit jullit du tooñ loo am doole am doole bul tooñ yàlla moo ñu ëpp doole te tooñuñu wa ma rabbuk bi zallaamin lil abid yàlla nee na jaam yi sax man duma leen tooñ ndax tooñ dama ko araamal ci sama bopp inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu borom bi nee na tooñkat yi xam naa leen fu ñu dugg ëllëg dinaa leen luqarti kon loolu tamit danañ ko jàng ci ñetti aay yi ñu war a jël tey mu nekk sunu kanam ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد دللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين سنبرم جل جلاله مني يو محمد وخلا غاين لين إني نهيت من دي دنج ما تري مو يو يننتي بلان لان لا تري mu ne an abuda alladina tad'uuna min dunillah ma jaamu an abuda ma jaamu ma ñaan ma woo ñan alladina gis ngeen ismu mawsul la du ay xërëm de léeg-léeg nga wax li ñu ne non non non foofu ay xërëm la ñu wax alladina ismu mawsul yàlla ko am xel lay waxal wala du loon ngeen jàng ci arab alladina gaa ñi nga xam ne tad'uuna yéen a ngi leen di woo di leen jaamu min dunillahi te duñ yàlla bu si yàlla kon kay leer na nañ ñaay borom xel lañ loolu man yonent bi yàlla def ma ko tere yàlla dafa wax ci man ne ma bul woo mukk mukk mukk mukk mukk mukk yaa ayyuha rasul e yow sama yonent waxal ak gaa yooyu nga xam ne ay bokkaale kat lañ allazina yaduunak ila muwafaqatihim ala shirkihim naan la ñëwal nga bokkaale sunu yàlla ñëwal nga def lii après ñu def lii waddu law tudhinu fayudhinuun kaa ñu négocier nga nooyal ñu nooyal qul lahum waxal ak ñoom de loo leen di wax ne leen man de yàlla def maa tere ma jaamu ñi ngeen di woo ñi ngeen topp min dunillahi walis yàlla xul wax leen ne laa attabiu duma topp mukk mukk mukk ahwaakum seeni bànneex gis ngeen moo tax woote yi ngeen di dégg bànneexi bakkan yi ku ci repp ba bàyyi li yàlla waxoon yonent ba nga topp loolu ñooñu seeni bànneex kaay ñu def la yàlla kaay ñu wan la yàlla kaay nga def nangam ak kaay jàngal li bàyyil alxuraan lii gën alxuraan ak kaay dem place sàngam moo gën julleek ba nga repp ba bàyyi diina yàlla ji bu leen rek laa lay ñaan mooy bul dee boo dee rek am problème ndax am na ku ñu mën a assuré du ñu dee ku lay dugal ci loolu moom leen rek laa lay ñaan bu yeboo nga ne ko assuré ma bu ma dee waaye boo reppee ba nga dee fekk yàlla di nga xam ne waa ji mënul woon dara amul woon dara dala doon nax rek yonent bi lañ proposé li sallallahu alayhi wa sallam gaa ñi bu ko sànq moo tax da ngay dégg yàlla mu ne ko walaw laa an sabbatnaaka man yàlla bu ma la dëgëruloon ma téye la këcc kon gaa yi daal lay réeral wala loolu daal ah yàlla moo ko téye moom yonent mais siinoo kon gaa yi tarxis loo ko waaye yàlla wallahu yaasimuka min annas yàlla moo lay musal ci nit ñi ndax yàlla nañu yàlla dëgëral na nga leen wax ne laa attabiu duma topp moom ahwaakum seen bànneex yi yi ngeen may wax ni ay bànneexi bakkan kese la waaw man nag duma ko topp waaw nahaani rabbi an abuda ma tad'una min al asnaami wal awsaan sama borom moo ma tere ma topp xërëm yi ngeen di jaamu ak lu mu mën a doon na nga leen wax ne laa attabiu ahwaakum duma topp seen bànneex yi fi ibadati gayrillahi ci topp ci jaamu keneen ku dul yàlla al mawrusa lakum yàlla yi ngeen xam ne moom ngeen donn ci seeni baay abaakum ah almawrusa moom ngeen donn xam ngeen nit ñi tey lii ñuy topp dañ koo donn caaxaan yi nit ñi topp koo wax mu ne la inna wajadna abaana ala umma man de sama ndey ak sama baay ci li laa leen fekk rek ci laay dee benn xale bu jigéen dama ko ne yow lan nga mu ne ma nekkaguma dara de ma ne ko waaw loolu doy na waar de kañ ngay nekk dara mu ne mu amee jëkkër lu mu nekk ma nekk ma ne ko déet mu ne waaw waaw nekkaguma dara ma ne ko nekkagoo sax jullit loolu xoolal pas-pas boobu kañ ngay jaamu yàlla moo amee jëkkër su boobaa la nekk mu ne lu mu nekk ma nekk kooku tey bu ko yàlla nattoo mu daje ku dul julli lu muy def da koy bàyyi loo julli da koy sànq bu dajee ak ku ate ko amul benn diine lu muy def ndax kuy xaar sa jëkkër lu mu nekk nga nekk dal na la yàlla may jëkkër ju am diine allahu akbar koo xam ne sa kilifa lu mu nekk nga nekk kon yal na la yàlla may kilifa gu jub waa dëgg la de boroom kër gi bu dee dee tëgg sabar jabar ji di tàccu mbokk yi doom yi nu ñuy def moo tax da ngay gis benn waykat ci télé bi mu ne man lii dama ko donn sama deret lay daw ndax sama papa ak sama yaay yëpp ay artiste la ñu woon wala nga dégg ko ne xaalisu mbër lañ ma ngénte man da taf xar mi ngénte xaalis bi kon kay du jommul nga nekk mbër dëgg la dëgg-dëgg loolu mooy mooy dëgg nag wax dëgg yàlla mooy dëgg ah waaw ku nàmp soow yi nag ah boo nàññu lit daane yàlla wax kat bi wax de nag ku nàmp soow nag boo nàññul xam ngeen nàññ mooy noonu nag bi def boo ko deful it mbëkkaati waaw ku nàmp soow nag boo nàññul it daane loolu mooy dëgg kon du hasard kii ne ma nàngam bi kii ne ma nàngam bi ku taxaw ku nekk taxaw di tëgg dënnam naan man lii laa donn ci samay maam kon mbokk yi kuy donn ci say baay wala ngay donn ci say maam yàlla nga donn lu baax ah waaw yàlla nga donn lu baax waaye ku donn lu bon musiba dina ko dal moo tax sunu boroom jalla jalaaluhu mu ne yonent bi waxal ñii man de duma topp li ngeen donn ci seeni baay ñu réer yi almawrusa lakum an abaikum addaal seen baay yu réer yi li ngeen doon ci ñoom man yonent bi duma ko topp ma ko ma ko ma kon su ma ko defee xam nga lu may dal xad dalaltu damay sànku damay réer xad dalaltu isan kon damay alku damay sànku ma bàyyi fi li yàlla wax li ma sama borom sant ma teg ko fi ma bëgg am ak yéen jàmm wala ma bëgg dëkk ak yéen ah wa daarihim ma anta fi daarihim loolu ay baati arab la loolu moom su ma dalee rek damay alku kon lan la isan mu ne qad dalaltu isan damay sànk dalal cànkute mooy lan mooy nga riir yoonu yàlla fi la yàlla traceel ne la jaaral nii nga daal di wàcc yoon bi réer nga waaw te ku yàlla réeral kenn mënu ko jubal man yahdihillah fala mudilla la ku yàlla jubal kenn mënu ko réeral waaye wa man yudil fala haadiya la wala falan tajid lahu waliyan murshida su yàlla réeralee nit kenn mënul jàpp ci loxo waajooju ba mu teguwaat ci yoon abadan day sànk rek dem yàlla na yàlla jubal mu ne kon isan wa ma ana min al muhtadin kon de duma bokk ci way jub yi allahu akbar kan mooy wax wax ji muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy wax su ma toppee seen bànneex yi kon damay sànk kon duma bokk ci way jub yi kon keneen nag gars yi lii moo ñu indil problème li tax sunu kilifa yi di bañ ñu jàng alxuraan ndax alxuraan da leen di dénoncé yi ñu nëbbul alxuraan di génne sànni ko fële mara ñuy tere taalibe yi jàng alxuraan moo tax ku jàngul alxuraan jàngaloo sa njaboot alxuraan gëmoo alxuraan alku nga yi ñuy nëbb di ko denc ci ron lal yi ci biir valise yi waxande yi ci biir dënn yi moom la yàlla di génne sànni ko ci biti su yàlla joxoñee yonent bi kon keneen waxi noppi wala wala kan moo gën a màgg ci mbindeef yi ci jullit yi léegi de moytu leen di laaj question yooyu nag moytu leen naan kan moo gën a màgg ci nit ñi moytu leen ko de léegi nga ko benn waaye ne la waay yaa déw nga naan la mun a la déw naxuma leen de mooy te ndiku leen loolu sax léegi di ko laajte kan moo fi gën a màgg ci jullit yi moytu leen sax di ko wax dégg nga gis benn dof ne la diw la waaw moo fi moo mu waaw mooy borom jaam ñi sax nag la lay wax soo dof dof loo sax mu ne la mooy borom jaam ñi mu tëb yonent bi nag nga pare nag waaw alxuraan dañu doon tere ñu wax ak ñi nga xam ne dañoo réer kon dañuy saaga yàlla lu tax mu ne adaawatam bi xayri ilm ndax dañoon ay noon lañ noonu te amuñu xam-xam dañoo réer sooy wax da ngay wax ak koo xam ne minimum sax am na tuuti ci xam-xam waaw ñooñu moom wa iza xaatabahumul jaahiluun qaalu salaaman waaw ñu mel noonu sax jaruñu waxal kon li ngeen may wax ci seeni bànneexi bakkan su ma ko toppee damay réer te su ma réeree wa ma ana min al muhtadin du ma bokk ci way jub yi man daal maa ngi leen di yëgal ne qul wax leen yow muhammad inni man mii ala bayyina maa ngi ci lu leer naññ naññ naññ al bayyinatu al xujja al waadiha al aqliya maa ngi ci lu leer nañ lay wu leer preuve yu ne weŋ set wecc ànd ak xel mu set ànd ak atte bu leer nañ boo xam ne bil fi'li awit tarki lu ñuy jëf lu ci leer nañ laay jëf la ñuy bàyyi lu leer nañ laay bàyyi waaw ala bàyyi na ci lu leer laa nekk gis ngeen yonent bi lu leer nañ ñi la ko yàlla indil ci lu mel ne midi guddi gu mel ne midi moo tax ba muy dénkaane mu ne bàyyee naa leen ma xajatum bayda layluha kanahaariha la yazigu anha illa haalik bàyyi naa fi guddi gu mel ni midi ku ko wàcc rek daal di alku yoon wu leer nañ bayda dafa weex tal mu ne leyluha ka nahariha guddi géeg bëccëg beeyam ku ko wàcc yoon woow rek da ngay sànk mooy li am nii tey ku bàyyi alxuraan ak sunna rek alku nga ak koo mën a doon nag ak ndomba tànk boo mën a am ak luñ la mën a takkal ci ay daraja ak ay garaat soo wàccee alxuraan ak sunna alku nga parce que ci réer ngay nekk ndax lu dul alxuraan ak sunna rek réer la bu leen sonn képp kuy wax ak yow waxu la alxuraan ak sunna waxu la yàlla nee na yonent bi nee na bu yow nga noppal sa bopp daf lay foowe rek daf la bëgg a jëriñoo ndax ku la nëbb borom jaam ñi wan la boppam ku la nëbb sangu jaam yi wan la boppam ku la nëbb téere jaam yi wan la boppam mu ngoog kon yonent bi moom li mu wax yàlla wax ko ci alquran mooy qul inni ala bayyina lu leer naññ ci laa nekk lu leer naññ loolu fan la jóge mu ne min rabbi ci sama boroom allahu akbar nekkul man lu ma xalaat dugg sama néeg man ak samay sahaaba ah wala déedéet man dama nekk ci lu leer loo xam ne min rabbi ci sama borom la jóge jógewul ci man mi jógewul ci kenn yoruma xalaatu nit wootewuma ci samay mbiri bopp amul lenn yonent bi lu mu wax lu jóge ci moom ah lu dul lépp lu mu wax rek ci yàlla la bàyyeekoo moo tax yàlla mu ne wa ma ataakumu rasul fa xuzu lu mu leen digal rek jël leen wa ma nahaakum an fantahu lu mu leen tere bàyyi leen sallallahu alayhi wa sallam bu dee waaye day yéen ñii wa kazzabtum bi loolu nga xam ne lu leer la bàyyi ko ci sama boroom ma leen ciy woo yéen de da ngeen ko weddi waaw da ngeen ko weddi fële ngeen ko sànni amu leen ci sax benn sikki sàkk fële ngeen ko teg négocié wu leen ci dara wa kazzabtum bi lépp ngeen fenloo ne du ay du dëgg waaw yàlla du bindul jaam ñi alxuraan du téere bu baax yonent bi du sangu mbindeef yi màkka jarta dem alxuraan rakkal la yooyu nga fi dégg tey waaw ñun denc kaaba gi kaaba gi mooy ñëw ci ñun di ñu fekk si ah waroon nañ ko gis de muy naaw di ñëw lu toll ne avion avion buy naawee ñëpp dañ koy gis weñ sax bu naawee nit ñi dañ koy gis picc bu naawee dañ koy gis wala pittax bu naawee dañ koy gis céeli bu naawee dañ koy gis kaaba gi di naaw kenn du ko gis dañ ko gis nag mu ne maa maa ngi nii man kaaba gi la maa ngi nii toxu màkka maa ngi nii di ñëw ci booru géej gi waa Sénégal ñu dëgër fi lu ne lañ am am nañ zam-zam am nañ kaaba am nañ safa ak marwa am nañu arafaat moom daal lu lépp lu yonent bi indoon waa Sénégal am nañ ko Jibril dafiy ñëw Jibril moo am jot waaw ndeysaan li yëpp du ko waral rek mooy bëgg nax jaam yi rek ndeysaan pourtant yonent bi alayhi salaatu salaam waxul woon li saxaaba yi naxu leen woon mu dafa leen woon dëgg gi yàlla wax rek mu bàyyi leen ko allahu akbar dëgg gi yàlla la jox ko moom dong la leen bàyyee wallaahi waaw sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen day lii nga xam ne mooy lu leer lu bàyyeekoo ci sama boroom ngeen weddi ko maa ngi leen di yëgal ne maa indi ma tastaajiluna bihi lii ngeen di yàkkamti man yoruma ko de fekkee da ngeen a alku ba yàkkamti mbugalum yàlla ah naan na leen yàlla mbugal su fekkente ne man yonent bi li ma yor dëgg la lii may wax dëgg la na yàlla taw seen xee xeet seen kaw loolu ngay dégg tey ci ndaw yi nga xam ne ndeysaan diine leerul seen bopp seen pas-pas wérul dëgërul ndax xamuñu da ngay dégg ñu naan boo dee yàlla tawal doj di askane yàlla tawal galaas tawal lii dafal lii nangam ak nangam yooyu ab jullit du jëme ci yàlla baat bu àndul ak yar ak teggin yàlla suñ boroom dañ ko war a weg dañ ko war a bëgg dañ ko war a respecté suñu boroom ndeysaan moo tax ca xadis ba ci Buxaari jàngeen ko bi yàlla di wax ne doomu aadama daf maa saaga te yellul chatamani ibnu adam te wa maa yambaxi la doomu aadama de saaga na ma waaye loolu de warul woon nekk sama digganteeg moom wa maa satmuhu iyaaya lan mooy saaga bi ma doomu aadama saaga doomu aadama nee na man yàlla dama am doom waa léegi ki wax na yàlla dafa am doom yàlla ne ko saaga nga ma kon ki ne diw moo defar yàlla nag kooku lu mu wax ah ki wax na yàlla am na doom yàlla ne ko danga maa saaga kon ki wax na yàlla dañ koo defar nag te diw mi moo ko defar ne ko bu ma ci feeñ soo nekkee yàlla man mii maa tax kon ki wax wax jooju moom lan la lan la lan la yenu kaburat kalimatan taxruju min afwaahihim in yaquluuna illa kadiba ay baat ay fen boo bëggee dégg ay fen rek ganeel Sénégal doo fi toog weer te déggu fi ay fen yoo xam ne dina la tax a ñibbi fa nga jóge woon ñun nag danoo mënta daw nag xamuñ fu ñu jëm moo la ñu toog fi rek fat ubbi sunu nopp yi di dékku fen yi waaw di dékku fen yi semaine bu nekk ñu yónnee la vidéo boo xam ne wala sonore boo xam ne saa waay fen yooyu boo ko déggee sa bopp bi sa tension bi xam naa moom ku fi am tension moom léegi nga léegi nga dee fii li nga fi diñ fiy dégg dafa mel ne léegi nit ñi dañoo rakkaaju ci dajale ay fen ak lu dul dëgg di ko adressé yàlla ak yonent bi rakkaaju lañ def waaw nag bu leen jommi ndax aaxiru zaman lan nekk lépp possible na fi waaw mu ngoog des na tuuti ngeen dégg kuy julleeti bul jublu penk jublul fii rek fii ci jàkka jee fee bu fi kenn jublooti kaaba gi ah des na tuuti ngeen dégg ko fi wax naa leen ko fi nag bis dina ñëw kenn ñëw fi naan man de fi ma demoon tey damaa bëggoon julli ñu ne ma anal anal anal kenn du fi julli ah ah am na waaw kon jërëjëf li ngeen di yàkkamti ci mbugal ndax bàyyi fi li ma leen di indil man yonent nekkul sama loxo maa indi ma tastaajiluuna bi xoolal lii day wane rek da ndeysaan ne yonent ma leen wax sànq moom amul dara lu mu jóge ci moom tey jii ñun ñuy toog fii am na koy waxal léegi mu weddi la nga munoon daaneel asamaan bi ci kawam rek da nga daan asamaan foo ne kaay mi ngi nii ñun ñi ñëw ñëpp wala wala nga ni benn kii acca song ko ndax ñun ay mbindeef lañ noonu lañ mel soo fi meree nit léegi rek soo yoroon ruum donc mën ngay fontoo paaka bi ngay jël rek dagg tiw bi muy nooyee mu dee waaye xoola yonent sallallahu alayhi wa sallam li ko gars yi di weddi yëpp ak daan ko wax xoolal mbugal mi na ñëw xool lu mu leen di tontu maa indi ma tastaajiluuna bi li ngeen di yàkkamti yoru nekku sama loxo waaw nekku sama loxo de yorewu ma ko inil hukmu illa lillah atte yàllaa ko moom aaya bu jara taxaw a ngi nii aaya bi dong war naa nekk dars inil hukmu moo tax ma leen di faral di wax ne ñii xaaj tawxiid ñeenti xaaj ñeenteelu xaaj baa ngi nii moom la ñuy wax tawxiidul xaakimiya atte justice yàlla moo ko moom warul nekk ci loxo nit ndax atte lu sévère la gis ngeen tey li problème bi Sénégal am depuis Sénégal bu nekkee Sénégal ba tey ñu ngi coow problème mu ñu ngi jooy problème mu justice président bu fi toog da ngeen dégg ñu ne justice bi am na benn baat bu ngeen di utiliser ci nasaraan naan justice lan xaw ma est lan am na nu ngeen koy waxee de ci seen nasaraan googu ngeen di làkk waaw naan justice bu ñu bu ñuy xawma dañ koy manipuler dañ ko ne jaaral fi mu jaar fi suñ ko ne xoolal fii mu xool fii suñ nee juge bi defal li mu def li gis ngeen sax ay juge yu démissionné Sénégal daal ne ñoom daal lii ñoom mënuñu ko gis ngeen wala atte yàllaa ko moom inil hukmu illa lillah te bu leen fàtte ñetti aaya yi dal ci atte wa man lam yaxkum bi ma anzala allah wa man lam yaxkum bi ma anzala allah wa man lam yaxkum bi ma anzala allah gis ngeen ñetti aaya yi yépp ci àtte la ñëw ba pare sunu borom day wax ci quran ne nit ñi bu ñu jullee bugguma ko bu ñu wooree bugguma ko bu ñu saraxee bugguma ko fala wa rabbika suñu gëmee yàlla sax bëgguma ko laa yuminuun ngëm la yàlla dàq foofu waxul sax islaam fala wa rabbika déedéet giñ naa ci sa borom yow muhammad laa yuminuun nit ñi duñu mën a nekk ñu gëm yàlla pourquoi hatta yuhakkimuka fi ma sajara baynahum hukmu ñëw na ba ñu atte loola li lënt seen diggante kon kañ la ñu nekk jullit suñu amee problème ñëw ci yonent bi ne ko atte ñu rek ñu nekk jullit suñ ko defulee yonent yàlla nee na du ñu ay jullit laa yuminuun hatta yuhakkimuka fi ma sajara baynahum ba ñu atte loola li lënt seen diggante soo attee ba pare summa laa yajidu anfusahum xarajan mimma qadayt boo attee ba pare ñoom ñépp du ñu gis ñagg-ñagg naan yow kii nga faral wala fee nga jeng déedéet wa yusallimu tas dañuy nangu yaa ngeen yàlla mu ne afa hukmul jahiliya yabghun ah yéen atte ceddo yi ngeen bëgg atte laïcité ngeen bëgg yéen jullit yi yéen jullit yi atte woo laïcité di dem tribunal di jël ay avocat yàlla yéen lay laaj nee na afa hukmul jahiliya afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsan min allahi hukman kan moo gën a rafet yàlla àtte jàngeen yàlla mu ne gis nga gaa yi de ñu ngi ne la di waaxu ñu ngi ne la di daw ñu ngi ne la xëy fajar dugg ay oto ñu nga ne la fuñ jëm di àtte woo ji ci lu dul yàlla àtte lu sévère la mbokk yi du lu ndaw de moom mooy diine te yàlla nee na loolu moom dong moo ko moom inil hukmu illa lillah jàngeen yàlla mu ne alaysa allahu bi ahkamil hakimin moo la ñu ne àtte bu àtte fii rek yàlla dina ko attewaat yowmal qiyaama atte bu ñu atte fii ñi ko atte yàlla dina leen taxawloo kanamam ñu attewaat ko mu ne moom yàlla yaqussul xaq moo ñuy wax dëgg moo ñu koy nettali yuxbiru bil xaqi moom jalla jalaaluhu sunu boroom moom moo ñuy wax dëgg yaqussul xaq moo nu koy nettali ba ñu xam ne dëgg mooy dëgg ñu téye ci bañ koo sori yaqussu alqasas alxaq moom yàlla moo nuy nettali nettali yi nga xam ne dëgg la waaw sunu boroom bépp qissa bu leen yàlla nettali ci alquran da ngeen di fekk dëgg la sunu boroom du wax safaan jalla jalaaluhu moo tax nit ñi war a delluwaat ci xissa yooyu pour defar seen bopp defar seen njaboot defar seen i dëkk defar seen i réew gis ngeen tax tey li tax jullit yi nasax mooy topp ci xissa tubaab yi da ngay gis bibliothèque boo xam ne waa ji la muy liir ci ay roman ci ay livre yu ay écrivain bind mu bàyyi nettali yàlla di ko nettali ci quran te yàlla wax na ko nahnu naqussu alayk ahsan al qasas ah jàngeen yàlla mu ne faqsusil qasasa nettali leen histoire yi yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoola buñ la nettalee histoire firawna ak Muusa tey ku doon nat dooley firawna ca jamonoom ku ko doon nat kan nga koy nat kan nga koy tollale ah seen waaj yi seen waaj yi waaw kon nga koy nattale ah ku kan na su kii ku doon natt tey doole firawna ci jamono kooku nga koy jox xoola yàlla yónni Muusa yorul dara uppukaay sax yorewu ko yorul sax jaasi yorul paaka lan la yor yat asa bu ko yàlla ne wama tilka bi yaminika ya Muusa lan la doon hiya asaya sama yat la loo koy dee mu ne atawakkaw biha moom laay sukkandiko yat yat dina xeex ak buur ah yat dina xeex ak buur waaye yàlla moo la koy nettali nga gis ni yàlla yëkkatee firawna ba ci kaw jullit ko ci suuf benn borom xam-xam day nettali mu ne bi yàlla di labal Muusa firawna bi yàlla di labal firawna dafa ne wa nabaznaahu fil yammi bi yàlla naan yaayu Muusa dugal ko ci ndox mi lu mu wax alqiihi fil yam mu ne kii bi muy dugg ci ndox mi amul benn kattan kële ba muy dugg ci ndox mi borom kattan la mu ne kon ndox mi la wala yàlla la déggu leen wax bi de déggu leen ko de bi yaayu Moussa jëlee Moussa di ko dugal ci kees di ko dugal ci ndox mi ban ban doole la Moussa am amagul sax ñetti fan liir bu tooy xepp mënul sax wëlbateeku yàlla ne ko def ko ci ndox mi firawna bi ko yàlla di dugal ci ndox mi fan la toll ci pouvoir fi pouvoir fi doole ji jeexee fa la toll bis boobu armée bi mu yor yëpp la génne tout songu géej gi kon du ndox mi kan la yàlla moo tax bu mu ne bu ragal kenn ku ragal da ngaa yabaate ku ragal rek yabaate nga da ngaa yabaate kee amul benn doole liir la ci ay laltaay la nekk ñu tëmbal ko ci ndox mi kee borom doole la bu armé wu ba ne kaj dugg ci ndox mi yàlla rëccal xale bu ndaw bi labal borom doole bi kon kan la ah histoire yooyu tey jii lan moo tax duñ ko wax suñu doom yi ba ñu am pas-pas aqida bu dëgër xam ne mbir yi du kenn du arme du doole yàlla la jëlal Firawna Ibrahim ak Namrud jëlal Ibrahim ak Namrud jëlal histoire mu ngi sa kanam alxuraan ñim lay nettali jëlal jëlal ku la neex jëlal sax Yusuf jëlal Suleymaan mais maal asaf li nu am xamuñu ko c'est parce que lan jànguñu mooy suñu problème sunu borom subhaanahu wa taala mu ne man yàlla day maa lay nettali maa lay wax la nettali dëgg gi moom yàlla yaqussul xaq wa huwa xayrul fasilin kenn mënta leeral leeral baraw yàlla waaw yàlla moom alfaslu fi shay mooy leeral mbir yëpp moo koy atte alqadaa wal hukmu fii moo koy atte moo koy leeral moo leen di leeral lan fil qadiya alxaakimi fiiha li nga xam ne moom lañ ci war a def moom lañ war a jëfe ak moom lañ war a bàyyi lépp yàlla moo koy leeral moo tax mu ne la wa huwa xayrul fasilin atte man yàlla maa ko mën maa la koy maa la koy faramfàcce leeral la ko ba mu leer naññ xul waxal yow muhammad ba tey law indi ma tastaajiluna bihi la qudiya al amru mooy li ma leen wax léegi doomu aadama doomu aadama kese la gis nga di nga wax ak ay nit ñu weddi li ngay wax ne la nangam ak nangam rek soo soo amoon doole nga ni ñëw leen ni ngay nekkee tey commissaire wala nga nekk préfet wala nga nekk wala nga nekk wala nga nekk gouverneur sànq maa ngi seetaan télé mbuur marche bi fa amoon autorisé wuñ ko gars yi ñëw dajala ci buntu mairie bi commissaire bi ñëw mu ne jóge leen fi tas leen seen ndaje bi ndànk gars yi ne ñoo bañ mu ne gars yi acca nañ fi jóge deux minutes ñëpp daw affaire yi tasaaro voilà doomu aadama pouvoir am su amee pouvoir rek wan ko ñi mu ñi mu ñi mu yilif wala ñi muy xeexal soo amee ngànnaay gu diis aussi bay xeex ak ay nit a génne ko ak loo mun a am nag. wala yonent bi moom lan la wax law indi ma tastaajiluna bi li ngeen di wax nii naan na asamaan këpp seen kaw wala na leen suuf si pëtax wala na leen géej gi wann naan ma naa ko indi maa ngi giñ ci sama borom bu nekkoon sama loxo bi tey la qudiyal amru kenn waxatu ko sotti na bu yàgg la qudiyal amru wax naa bu yàgg géej gi wann nii ñoom ñëpp dee nañ waaye nag mbir yi ci loxo yi yàlla nekk waaw moom yàlla moomu bayni wa baynakum moo nekk sama diggante ak yéen waaw mbir yooyu ngeen di wax su fekkoon ne sama loxo nekk la qudiyal amru bayni wa baynakum kon sañi suñu diggante man ak yéen leer na nañ nañ nañ nañ kenn waxatu ko ndax kenn seen du ñu bi gërëm fii ngeen di nekk rek laa naan suuf si wane leen ñoom ñoom ñu dee suñu borom mu ne wallahu aalamu bi zalimin man yàlla maa maa la gën a xam tooñkat yi aalam man yàlla mii soriwu ma de maa leen gën a xam tooñkat yi bii rek aaya bii rek war na tax kuy tooñ nga deltu ginnaaw nga yàlla nee na xam na la yemu sax ne xam naa la waaye nee na aalam wallahu aalam bi zalimin tooñkat yi ñiy tooñ yàlla di ko wax looloo xam ne du dëgg wala di dal ci kawam wala di dal ci diineem ji wala di dal ci yonentam bi wala nee na maa leen ko gën a xam waaw kon koo xam ne moom da ngay tooñ di yàq di teg ci deru lislaam di teg ci deru yonent bi loo xam ne jaaduwut digal ne yàlla subhanahu wa taala moom moom nga déclaré guerre mu ne walaa yuhlaku xayruhum kenn du alku kudul ñooñu waaw ndax ñoom ñoom la buggal di xaar ëllëg lu tax lan mooy sabab bi mu ne bi zulmihim ndax tooñ gi ñu doon tooñ sëriñ ba daan wax ne bu ngeen jàngee alxuraan bu aaya yi di jeex bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee suñu aaya tey yi mu ngi jeexee wallahu aalamu bi zalimin man yàlla maa leen gën a xam tooñkat yi yàlla nañ yàlla muccal ci tooñ mbokk yi loolu mooy dars tey ñu ngi jégalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fekkee am na ay laaj